jekk jarul giñ inna na naka buur yàlla xabiirun aji dëñ kumpa la waaw kañ xabiiru mooy ku dëñ kumpa léeg nga dégg ñu ne nit diw ku dëñ Sidi Maxtaar Kunta ku dëñ kumpa la déedéet yàlla rek a dëñ kumpa nit day bañ kumpa danga naan diw ku bañ kumpa la nit ñi dégguñu wolof léeg nga dégg ku ne am naa lu ma naqari naqar ak metit lu jafe séparé la moo tax ku faatu nga dégg ñu ne ñu ngi am tiis ak naqar naqar du dëñ ba yowmal xiyaam lay dëñee métit nag mën na métti léegi sedd léegi <laughs> dégg ngeen moo tax dee wax maa ngi am métit naqar moom ku ko am du dëñ ba yowmal xiyaam yowmal xiyaam lay dëñee moo tax nga dégg ku faatu ñu ne ñu ngi am tiis ak naqar di leen tàggee alaaji Baaba Géey Mansour ndax dootoo ko gis fekk fekki woo ko loolu tiis la naqar la ci koo xam ne yéen daan bokk ceebu jën bi di bokk jàkka ñi di ànd ndor di dem di dikk tey mënatoo koo gis boo ko gisee da koo gënt wala nga fekki ko loolu tii loolu naqar la métit nag ci yaram rek lay yem moo tax nga gis ba yàlla di wax ci alxuraan ne wala nabluwannakum bi shay'in min al xawfi wa juu'i wa naqsin min al amwaali wal anfusi wa samaraat wa bashir wa bashiri saabirina alladina ida asaabathum musibatun qaalu inna lillahi wa inna ilayhi rajiun ulaika alayhim salawatun min rabbihim la min amerika wala min angleterra wala min faransa wala wala wala min allahi ah kañ wa bassiri saabirina alladina ida asaabathum musibatun qaalu inna lillahi wa inna ilayhi rajiuna ulaika alayhim salawatun min rabbihim wa ulaika humul muhtaduuna salawatun min rabbihim moo tax waaye moo tax ma ne la laa min Angleterre wala min faransa wala min Espagne wala min wala min <laughs> Arabie Saoudia wala wala wala min allah ndax loolu yàlla rek ko ko yor ci loxoom moo tax yàlla teg ca nag wa ulaayka humul muhtadun ñoo ñoo ne coow jub jëm si ci man ndax ji ñuñ ko kenn laalul seen xol ci seen yaram la yem mhm. allazina isa asabat hum musibatun laalul xol ba yaram wi la yem moo tax ñu am metit waaye amuñ naqar bekkoor bi ci sa yaram la yem wala de ndax yaa ko liggéeyoon xëy ñàkk ko ci sa yaram la yem hmm? kii dem nag yàllaa la ko joxoon yóbbu ko moo tax inna lillahi wa inna ilayhi raji'un moo tax muy méttit moo tax ñu nga dégg ñu naan ñu ngi am tiis ak naqar loolu naqar la métit nag ci yaram lay yem sibiru métit la tànk buy métti métit la wànnent métit la yooyu métit ci yaram la yem waaye du laal xol naqar nag ca xol lay perse aywa fu ñu yem hmm? wallaahu aji buur yàlla inna allaha naka buur yàlla ban aaya la waaw wax ma aaya bi man damay xo waaw kañ waaw kañ inna allaha naka buur yàlla xabiirun aji dëñ kumpa la bi maa ca la nga xam ne taamaluuna yéen a ngi koy jëfe looy jëf rek yàlla ne xam naa ko kon na baax looy jëf rek yàlla ne xam naa ko kon na baax looy jëf yàlla ne xam naa ko kon na rafet xulu neel xol firiwul waxal de foofu tamit nañuy def très attention ci alquran xul doo wax ne waxal boo nee waxal rek sa bànneexu bakkan ngay te yonent bi wa ma wa ma yantiqu anil hawa du wax ci bànneexu bakkanam xul neel dafa naan tekk su ma la noon oustaz Sidi Ahmed Mbay bu Chérif Ibrahima Aïdara Tidiane neel danga nga naan Chérif nee na toog di ma déglu mu ngi leen di sant nee na mu ngi leen di sant waaye su ma la nee oustaz Sidi Ahmed jógal wax dangay seet lu rafet rek nga di ko wax mooy différence xul neel ak waxal xul neel lay firi ndax waxu yàlla la yonent bi di jottali moo tax yàlla na yonent buur yàlla na yonent bi xul neel gaa ñi atiu nañuy topp allah buur yàlla wa te buñ ca noppee topp yàlla googu atiu nañu topp arasula ndawam lii <laughs> waaw baat bu nekk ak piréem na xul neel yooyu sallallahu alayhi wa sallam neel gaañi atiyu nañu topp allah buur yàlla de wa buñ noppee ca topp ga atiyu nañ topp rasula ndawam li muy sallallahu alayhi fa ca saasa nag ba nga xamee ne defuñ ko in tawallaw ñu dëddu <laughs> fa ca saa sa bañ ko deful lank na duñ ko def in tawallaw topp ñu dëddu fa innama lii mbir tey mbir nañ xam ne li wér te wóor mooy alayhi nekk na fa ñoom fa moom yàlla war na leen alayhi war na leen ñoom maa la nga xam ne xumi la yeneef nañ ko ci bàkkaar wa aleykum yéen war na leen maa la nga xamee xam ne xumiltum yenu ngeen ko ci ay bàkkaar mu firi ko ca beneen laaya wala taziru waziratun wizra uxra benn bàkkaar du war bu moromam sama bos man rek lañ koy bindal bu man sorge yi moom rek lañ koy bindal ku lank ne doo topp yonent bi la wax ne bàkkaar baŋ nga cay amee yaa koy yenu ñoom it bàkkaar bañ cay amee ñoo koy yenu ku lank topp yàlla ak yonent bi loolu nga ci bàkkaar bu ci tukkee koo rek yaa koy yenu bu dee mbooloo ñoo koy yenu waa fàttalikul ne in jamono boo xam ne tutiuhu topp nañ ko moom yonent bi tahtadu daañu jub de yàlla ne saa yu ngeen toppee yonent bi rek di ngeen jub wa maa déet wa fàttalikul ne maa déet alal rasuli muy war yonent bi illal balaa lu dul jotal al mubiin gu biir nag jotal rek moo ko war nga déggee ci lasta alayhim bi mu saytirin joxuma la yet pour nga topp ci seen kaw di leen fudd pour ñu gëm déedéet jottalil rek na leer it li ngay jottali rek jeex na waada digéef na allahu buur yàlla alladina gaañ a nga xam ne amanu ñoo gëm minkum ci yéen waa amilu yamuñ ca ñu ngay jëfee asaalihaati farata yeeg naafila yi li la yastaxlifan na gëñ naa ne danaa wuutal fil ardi ci kaw suuf kama staxlafa comme na mu wutalee woon alladina gaañe nga xam ne min qablihim ñoo leen jiitu woon wala yu makki nan na dana fexe lahum ñeel leen diinahum ci seen diine ji allazi tada bi nga xam ne man yàlla maa ko gërëm danañ leen ci fexeel waaye bu mu tax ngeen bàyyi wala hum ñeel na leen du noonu di wa diina diinahum allazi allazi irtada lahum diine jii nga xam ne moom laa gërëm ci yéen bu ngeen ñàkkee fayda danañ leen ko xañ wala yu baddile na duñ ca yem de bu ngeen sàgganee bu ngeen sàgganee wala yu baddila na dana utal la yubaddilannahum dana leen utalal min baadihi mu ne wala boog nga ne walla yu di wala yubaddilannahum dana leen utalal dana wuutalee min baadi xawfihim gannaaw seen tiit gi ak seen njàqare gi ngeen am am nan ak kóolute xam nga loo ciy déggee fooy jooyee insécurité yàlla ne na nga muñ bés dana ñëw nga am sécurité fooy jooyee bekkoor yàlla ne muñal bés dana ñëw nga am naataangi fooy jooyee ñàkk yàlla ne muñal bés dana ñëw nga am fooy jooy xiif yàlla ne muñal bés dana ñëw nga regg bu tabaski ñëwee nga lekk soos yàlla ne boo xiifee muñal bu tabaski jotee di nga lekk soos yaakaar naa tabaski ñëppay lekk soos de ku amul xar sax di lekk soos yàlla ne muñal ba tabaski rek di nga lekk soos soriwaay ba rek la góor ga waxoon sëñ Fàllu Mbàkke ba mu ñëwee ne sëñ Fàllu xarum tabaski ndey laa doon bëgg sëñ Fàllu ne ko wàcc na la di ba nga ko amul rek la la wàcc xam nga wax na ko dëgg góor gi am ñàkk jom day di ne ko Mbàkke ñàkk tabaski moom gàcceek at la ñàkk dépense na gàcceek suba la gàcceeg suba gën a yomb gàcceek at ndax boo amul dépense tey am ko suba ñu fàtte bi nga ñàkkoon démb waaye ñàkk tabaski moom gàcceeg at la feek tabaski del si waatul nga am tabaski gàcce gi du jeex te xajoowu ma gàcceeg at mbàkke dimbalee ma ci xar yi sëñ Fallou ne ko toogal tuuti sëñ Fallou nit ku nit ku nit ku baax la woon nitu yàlla piir Serigne Cheikh Tidiane si moo wax ne Sénégal xàmmeewuñ mu ne ñii senegal xamuñ seen xam-xam seen wilaya lañ xam mu ne sëñ Fallou Mbakke sëñ Cheikh Mbakke Gaynde Fatma Cerno Saïdu Nuuru Taal mu ne ñii nit ñi xamuñ seen wilaya seen xam-xam seen wilaya lañ xam sëñ Fallou ne ko toogal mu toog ba jant bi di waaj a so mu àkkaat sëriñ bi ne ko ah jant baa ngi sori te gannaaw ëllëg la tabaski sëñ bi ne ko maa la ne toogal toogal rek yow bejant bi soo sëñ bi ne ko fanaanal bu bër set xam nga kon bu bër ëllëg rek mooy tabaski yàlla def nag bi mu ko nee da ngay fanaan ba bër set am xar mu ñëw sëñ Fall ne ko ah ndokk xar mi ñëw boog jël ko mu jël xar mi yow ne ko kon mën naa fanaan ba bër mu ne ko waaw man kay nee naa la fanaanal bu bër ci guddi gi nag muy tuuru ndox dugg ci wanag wi gis xaru yar yi <laughs> ñi yeew leen ci wanag wi bër set mu nuyu sëñ Fallou war a dem ñibbiwu ñibbiwut mu ne sëñ Fallou man de ci xaru yar yi laa bëggoon sëñ Fallou ne ko jógal tukkal fële waay xaru yar yooyu ñi ma yara moom yow biig nga fi ñëw xar mi biig la fi ñëw ànd leen te wey <laughs> yar yi ñi ma yara ko moom yow ah, yow biig nga fi ñëw xar mii biig la fi ñëw ànd leen te wey baadoola moom du jub gàcce te tàbbi ca yow xar nga doon ut may nañ la xar doo dem nga naan ci xar yi laa bëgg kañ acca fu ñeemoon ah waadallaahu wala paase nañ ko waaw kañ min baadi xawfihim am na may may def nii rek téere bi moo tax waaw kañ mu ne wala yubaddilannahum dana lañ utal min baadi xawfihim gannaaw seen ko ragal nga am nan koo leti yàlla ne kon mboog bu leen ragal kenn bu leen def kenn yaabuduuna nii nangeen ma jaamu ndax maa yor yëf yi wala yushrikuuna bii bu leen ma bokkaale shay'an ak dara comme maa yor yëf yi jaamu leen ma ci bu leen ma bokkaale ak dara wa man képp koo xam ne kafara weddi na baada zalika gannaaw bi ma ko gaaralee lii te wax ko yonent bi wan ko ko fa ulaayika ñoom ñooñu weddi hum ñoom na ñooy saay-saay yi yàlla ne waaqimu na ngeen taxawal asalaata julli juróom waatu na ngeen joxe azakata azaka su ngeen ko amee waatiwu na ngeen topp ar ndaw le billaahi yonent bi bari daraja kenn du rasulullah yàlla ni mu ko bëggee rek moo yéeme wa aqimu na ngeen taxawal asalaata julli juróom waatu na ngeen génnee azakaata azaka bu ngeen ko amee waatiwu na ngeen topp arrasula ndaw li muy yonent bi sallallahu alayhi wasallam laallakum ndax yéen turxamuuna ma man leen a yërëm wa ma arsalnaaka illa rahmatan lil alamin fa nga koy déggi mu ne laa na bu leen jortu alladina gaa ñi nga xam ne kafaru dañoo weddi mujisina daañu rek rëcc fil ardi ci suuf hmm? ah waaw Mansour yéex nga indi bii bii moo gën a gaaw hmm? bii moo gën a gaaw <laughs> fii lay am ah, xëy na yàlla xam na ne yi yi ci kaw teg bi yëpp géej naa koo xool kon hmm, cey yàlla cey yàlla cey yàlla yàlla bëgg yonent bi ah waaye nañ bëgg yonent bi nañ ko bëgg mooy rëccuwaay bi de billaahi mooy rëccuwaay bi mu ne waa aqimu na ngeen taxawal julli yi assalaata julli juróom waa nangeen joxe zakata azaka su ngeen ko amee def ko nag doyut xam nga lu tax doyut mu ne wa fàttali ko ne su ngeen ca noppee atiu na ngeen topp arasula ndaw lii muy sallallahu alayhi wa sallam topp ko loo cee amee la laallakum ndax yéen ñi ko topp turxamuuna yàlla mën leen a yërëm mu ne laa tax taxsabanna bul jortu ne alladina gaa ñi nga xam ne yow mi nekk ci njub te gis ku nekkul ci njub du tedd tax yàlla di wax xam nga day am. guddeeg bëccëg yaa ngi ci jàkka ji te mënoo am dépense yaa ngi woor ba sa tuñ ñi wow te mënoo am ndogu ah yàlla ne nga gis koo xam ne mband dong lay liggéey xaalis di naaw gauche droite yàlla ne bu mu la jaaxal nag mooy jamono bii ñu toll tembe ki nekk ci njub day mel ni ku yor xalu safara ki nekk ci ndëngate day mel ni banaana yeeg pom yi dañ koy gane si yow moom la yàlla di wax nii nag ak leer ak a leer jamono bii boo baree ya tànk ca jàkka ja sax foo ñaanee jabar duñ la may ne moo ki nga xam ne jàkka ji doo ko <laughs> nit ñee bon ki dëkk ci jàkka ji kañ lañ waroon a may jabar ah loolu de la yonent bi am izaa raaytum man tardawna diinahu wa xuluqahu fa zawwijuhu illa takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir salaay sallam ne bu ngeen gisee ku ngeen gërëm diineem ak ngoram may leen ko soxna gaaw su ngeen ko defu fitna ak yàq du jóg ci kaw suuf fitna ak yàq du jóg ci kaw suuf léegi nag ka gën a miin wasifa malaan ma ka gën a miin xasaayit yi ka gën a miin jàkka ja bu ñaani jee dañ naan moo sabadoram bu gàtt bii boo ko mayee sa doom ji di nga ko toroxal waaye billaay bu ñëwee takk seen bu ponkal sol jóogin ak ay dàll montant sa takk montar bu yem ni pënu oto ñu ne itali la jógee moom balaa mu naan may ñu ne ko jëlal loolu am de waaw takk chaîne takk lam takk pontor ponkalu montor son jóogin sol montant bu nee salaamaaleykum balaa moo ñaan ñu may ko waaye kii dëkk ci jàkk ji dañ naan billaay jàkk gaa yi soxor diine moom dara lañ ko yéenewuñ nitu diine yéenewuñ ko dara dara dara ci kaw suuf yàlla na yàlla musal nag ñun lay waxal foofu acca déglu leen mu ne laa tax saban na bul jortu ne yow mi jub te dëkk ci jàkka ja yow la yàlla di waxal mu ne laa tax saban na bu leen jort ne alladina gaañ a nga xam ne kafaru dañoo weddi mujisina daañu rëcc fil ardi ci kaw suuf ndax seen caacaay yeeg seen caaxaan yi ñuy def duñu rëcc mukk yàlla ne duñu rëcc de wa ma màngeef na leen màng ñi def jur xam ngeen màng pël yi ñoo koy def ñiy màng seen jur gi jëlee saalum yóbbu jolof wala jëlee jolof yóbbu saalum looluy màng mooy mawaahum leer na wax yàlla ne mawaahum danañ leen màng seen màng fu ñu jëm annaaru mooy safara dañ leen di màng jëme leen safara mawahumu naar yàlla ne màng moomu nag walla bi sa bon na almasiru mujj ga yaa ayyuha alladina amanu ey yéen gaa ñi nga xam ne dangeen ngeen gëm ah du noonu la yastazinukum du noonu ah li yastazinakum waaw kay dee leen dee leen wax de xam nga lu tax am na ñu bari ñu jonkoon ma def ab fët rek lañ yàkkamti moo tax yéen ñiy xool tafsir bi dee leen wax de yéen ñiy xool yax bi dee leen xool bu baax a baax mu ne li yas li yastazinkum alladina malakat aymaanakum dee leen utal ngant ñi nga xam ne ñoom ñooy seeni jaam ba jaam di am jaam amatul nag jaam amatul kuñ ne jaam nga rek daf la neex nga nangoo nekk jaam yii dindi jaam yépp dog na jihaad amatul fi sabilillahi jihaad fi sabilillahi amatul jeex na moo tax jaam jeex beneen bi nag bi gën a garaaw ijma moo ci daje àddina bi yëpp jullit ak katolik ñoo daje ne njaayum jaam ak jaam na dakk dëgg loolu dëgg ñu signé ko ratise ko convention Nations uni am na wala amul moo tax jaam amatu kuñ ne jaam la rek dafa fekk yow nga bëgg lu yomb xam nga kuñ ne jaam nga nga yungi yungi sa sang di la yónni di la may bëgg lu yomb rek la bokkul ak njaam gii ñuy wax nag doomu nijaay doomu bàjjen boobu moom bëgg lu yomb la rek ak lu neex ak day neexal diggante waaye njaam moom ko jaay ko amatul ku ko fi def ñu jàpp na moo lay won ne jaam amatul ah nag suñu mbokk alpulaar yi naan ko màcce doo hmm, ko màcce doo màcce doo la ngeen baal ma nag alpulaar yi mu ne liyastazinakum na ngeen di jox ngant alladina gaa ñi nga xam ne malakat moom moom ngeen leen mooy seen jaam aymaanukum ci seen i ndeyjoor moom ngeen leen ci seen i ndeyjoor mooy jaam foo digg malakat ay aymaanukum rek mooy jaam xam nga boo ko doon firi tey noo koy firi boo amee jànq bon mbindaan ci kër gi mu tàggula la màggalu tuubaa may ko une semaine lu mu lay wàññi waaye mu dem màggali ñetti fan mu ñëw nga dog ko ko ci salaire am te yow yaa nga dawee biro ba dem Touba kenn dogu la ko ci sa fii la gën a leere xam nga période màggal lañ toll tollu pire maa ngi ñaan boroom kër yi waaye waaye ngir yàlla ko ci am mbindaan wala booy mu tàggu la màggalu Touba amal xol bu rafet may ko une semaine yow mii koy employé tey bureaucrate daw nga ca bureau ba màggalug tuubaa nga tàggoo te demoo tuubaa jam ñaajo sax yeggoo fa te kenn du la ko dagg ci sa salaire wala sax demal ba Touba waaye kenn daggu la ko ci sa salaire yàlla ne kon woyofalal ko mbindaan mi ci biir kër gi malakat ay maanoom léegi fenn rek la am mooy mbindaan yi foofu la des te ñooñu du ñu ay jaam mooy ñi ñuy liggéeyloo di leen fay foofu rek la am fi mu ne nii malakat ay maanoom ñoom rek la. mooy bon yi ñi xamul bon mooy mbindaan wala booy yàlla ne dee leen leen woyefal te di leen may ngant te di leen ko nangul waaye mbindaan yi tamit buñ di fukki maam ci benn weer leer na booy bi tamit bu mu rey fukki maam ci benn weer bër <laughs> bu seen nga rey menn maam fukki fan jeex na te fan fanweeri fan la weer wi ñaar fukki fan nga liggéey yow itam nag amal yërmandi ci sa patron du dëgg waaw ñaari camp yëpp am nañ ci wàll moo tax mu ne aymaanukum waaw mu ne walladina gaañ a nga xam ne nag lam yablugu jotaguñ alxuluma gënt minkum ci yéen salaasa marratin fii xam nga ku muy wax visite loolu na ko Sénégal yëpp dégg aaya bi heure visite lay joxe maanaam sa doom bi am six ans maanaam de waaw quatre ans cinq ans six ans ba dix ans wala sax ba douze ans léegi précoce yee tax douze ans sax léegi dinga nga gis ko am douze ans <laughs> rek maara day taali naa la ko wax hmm. naa la ko wax di nga gis jigéen xale bu jigéen 12 ans fekk hmm. di nga gis xale bu góor boo xam ne 12 ans boo àddoo rek baat bi nga xam ne kii major na bu yàgg. Oh, ci baat bi nga koy xame bu yàgg ne major na kooku soril ko jigéen ñi bu nekk ci néegi jigéen ñi mukk waaw <laughs> boo gisee baat bi mel ni xàndi na na beru ah yàlla ne bàyyiwuma dara mu ne alhamdulillah mu ne wala diina gaa nga xam ne lam yablugu jotaguñu alxuluma gënt minkum ci yéen salaasa marratin ñetti yoon ci bés bi la xam nga luy ñetti yoon ci bés bi visit mu ne ñetti yi balaa nga ciy seeti nit déglu leen bu baax nanga ko ko yëgal tàggu ko bul ne sama xarit la wala sama ndey la wala sama baay la nga ñëw rek ne ñuxit biir néegam yàlla ne bu ko def de wala nga ñëw ci këram bu ko def nee na ñett yi balaa nga koo seeti kenn nanga ko tànn ñu ne ko ban mu ne déglu leen salaasa marratin ñu ne ko ban mu ne min qabli salaatil fajiri lu jiitu fajar di jot loo miin miin sa néeg ndey ak sa néeg baay bu fa dugg yow mi majeur ki majeur lañ ko may waaye yow mi majeur mayuñ la ko min qabli salaatil fajri moo ci jiitu lu jiitu fajar wa xiina tadawuna siyaabahum min aldahirati ak waxtu wañ summee seen yére yi teg ko di noppalu mooy yoor njolloor entre 14 heures wala 13 heures 14 heures ba 15 heures foofu ba 16 heures sax suñu borom nee na bu fa seeti kenn te du danga ko ko yëgal mu des benn ñaara nga mooy lu jiitu fajar waxtu tisbaar min eh, wa ak itam mu ne wa min baadi salaatil ishaa yi ak gannaaw buñ jullee gee ba noppi nee na boo jul buñ jullee gee ba noppi bul seeteeti kenn wala koy seeti ne ko après gee dinaa fa ñëw après tisbaar dinaa fa ñëw après fajar dinaa fa ñëw wala avant fajar dinaa fa ñëw leer na akay min baadi salaati al ishaai gannaaw ji liggéey yàlla ni salaasu awraatin ñetti barabu awraa ngi nii bu fa kenn seeti sa moroom te tàgguwoo ko lakum ñeel leen nag laysa aleykum déet bàkkaar laysa aleykum déet di leen war wala aleyhim di leen war ñoomit junaahun benn bàkkaar baadohun na leen ni ci ñoom tawaafuuna aleykum baadukum baax baadin yëgalante ko ci seen biir lay firi su ngeen ko yëgalante ci seen biir nag mu ne benn bàkkaar amatu ci oustaz Sidi Mbay bu Chérif Ibrahima Aidara Tijaani seeti Serigne Mansour Guèye walla seeti Imam Youssou Guèye walla seeti walla seeti Serigne Dia mu ne tawaaf ni ñëwaree kaaba gi mooy seeti wante tawaafuuna gis nga moom la indi ni ñuy waree kaaba gi mooy seeti wante xam nga kaaba goo koy wër doo taxaw mu ne dagan na nag ci ñoom ak ci yéen ngeen di seeti wante ci waxtu woowu waaye na ngeen ko yëgle avertiral nit ki balaa ngay dem tawaafuuna aleykum baadukum ala baadi yàlla ne ka daalika buur yàlla ne na ka daalika naka noonu yu bayyinu la leeralee allahu buur yàlla lakum ñeel leen aayaatin aayaam yi wallaahu buur yàlla alimun aji xam la xakimun mooy ki xereñ wala nga ne wallaahu buur yàlla xakimun mooy ki xereñ alimun te xam lim bind ñaar yépp la neexee nga firee am ñuy jëlee fi yóbbu fi am fi yóbbu fële ñaar yépp boo ci def nag dagan na wallaahu buur yàlla alimun moo xam lim bind xakimun moo xereñ ci lim bind wala nga ne wallaahu buur yàlla xakimun mooy aji xereñ ji alimun xam li mu bind waa fàttalikul nag ne isa jamono boo xam ne balaxa jot na al atfaalu xale yooyu minkum ci yéen al xuluma gënt xale bu ci gëntati ba mën yu génn nekkatul xale yàlla ne bu boobaa nag nekkatul xale bu boobaa fal yastazin nay yëgloo falyastazinu nañuy yégloo kama stazana naka la nga xam ne lay yëgloo di diisoo alladina ña nga xam ne min qablihim ñoo leen jiitu ci mage ci mage saa siin leer na kazalika naka noonu yu bayyinu la leeralee allahu buur yàlla lakum ñeel leen aayaatihi aayaam yi mu leer nañ wallaahu buur yàlla xakimun moo xereñ alimun moo xam bindam bi wallaahu buur yàlla alimun aji xam la li mu bind xakimun moo xereñ ci lim bind walqawaacidu min annisaai allaatina laa yarjuuna nikaaxan mu ne ñenn ci jigéen ña nga xam ne nag laa yarjuuna yaakaaratuñ nikaaxan ku leen takk ndax lan màggat wala lan lamb tamu bu bare indi lamb ku ñëw nga ne du kii ku ñëw nga ne du waaja ba waaja romb la ku ñëw nga ne du waaja ba waaja romb la waajee fii def waaji nag waaja gut <laughs> waaji waaja gut a takk moo tax mu fi yàgg waaja romb na la mu des waaji waaji nag waaja gut mooy indi lam fal yastazinu nañu yëgle kama yastazina alladina min qablihim kadalika naka noonu yubayinu la leerale allahu bur yàlla lakum ñeel leen ayaatihi aayaam wallaahu buur yàlla alimun mooy aji xam li mu bind xakimun moo xereñ ci li mu bind wal xawaayidu min annisaai allaati laa yarjuna nikaaxan jigéen ñi nga xam ne yaakaaratuñ ku leen takk fa laysa alayhinna déet bàkkaar di leen war fa laysa alayhinna déet di leen war junaaxun benn bàkkaar an yadax na benn bàyyi siyaabahunna seen yére ya xam nga loo ciy firi nekk ci kër gi yow jigéen ne damay woyafal ah, du noonu ngeen koy waxee yéen jigéen ñi senegal bàyyil ma woyafal ko wallaay du noonu yéen jigéen ñi baal leen ma du noonu ngeen koy waxee dama ko woyafal rek waaw yàlla ne ki ma may mu woyafal mooy ki yaakaaratu ku ko takk kooku bu ko neexee mu jël musóoram sànni fële bu ko neexee mu sol benn nuñ koy waxeeti ci shirt bu yem wala garam bu bam bu woyof à la légère daal du dégg ngeen ko. Ah, Ah, waaw kañ boobu la ala réserve yàlla ni ki ma ko ki ma may mu ala réserve mooy màggat mi nga xam ne yaakaaratu ku ko takk waaye màggat mi yaakaar ku ko takk sax bokk ci de ndax Seydina Omar fekk na mel ni màggat moo am juróom-ñetti fukki at muy gëstu mbiru jigéen la doon gëstu boobu Seydatuna euh, kii Seydina Omar daf doon seet fu jigéen di toll dootul soxla borom kër mu laaj ko Seydatuna Hafsa Seydina Seydatuna Xafsa ne ko loolu awma ci xam-xam doomam la mooy doon soxna si yonent bi mu dem fekk benn màggat bu am juróom-ñetti fukki at mu ne ko soxna si dama lay laaj sa digganteeg sa borom fan la jigéen di toll dootul soxla borom kër mu ne ko man de maa ngi te su ko amoon tey jël <laughs> tax léeg-léeg nga gis ci kër yi musiba boroom kër faatu doom ya taxaw ne seen yaay dootul sëy billaahi doom yu leen gën a bon judduwul dafa xaram te àq la beneen bi ci ne si am lu ko waral paa yi tamit nañ respecté seen bopp man am na bu ma ci doon àtte boy yi dañ ma ne ñun bañuñ meer bi am beneen boroom kër mais paa bi fi njëkk a ñëw ñu may ko ko paa bi day toog fii sol kilo tab xam nga paa yi tamit ñoom it dañ doy wax wallaay loolu la ma boy yow paa bi fii day toog di sol kilot ñu woo maire bi ne ko paa bi na nekk kilifa wala mu génn kër gi ma ne ko génnee leen ko kër gi xanaa boy sax du sol kilot waxuma la paa waaye nag am na lu xew boo demee paa ba dañ koo jomm boo demee paa ba dañ koo jommal <laughs> nax sa goro la ko gaa yi tuddee kiloon tabarkal la waaw yal na yàlla def gis nga àddina àddina dañ koy suukar te bañ koo xorom gis nga fii ku dul yonant soo fi jógee mën nañoo takk sa soxna ab yonent rek lañ du takk soxnaam ginnaawam waaye ku dul ab yonent boo fi jógee mën nañoo takk sa soxna sa ginnaaw kon maa ngi ñaan njaboot bi buñ di lor seeni way jur yi nañ leen bàyyi buñ giseen ku leen ku leen bëgg ñu jàppale leen ca am na ci ku ma xam koo xam ne mu ngi fii day ñëw ci xadara bi biñ bëggee takk ndeyam dafa lank bi tëdd ci suuf te tegu ko fet ne ko bu la neexee mu takk la ah, mais da ngay génn kër yi sa ndey jur la ba nga am kër wut néeg dugal ko ca mottalil ngóorali ka ko bëgg bëgg koo takk ñëw ci kër gi di fa fanaan loolu lay wàññi sa baay ñàkk na fayda ba fase sa ndey bàyyil geneen ngóor jël ko waaye di lor sa yaay ku ko ci def di nga ko layoog yàlla te yow te ñu baal ma ci wax yu ñu baal ma te yow ku góor gi yow même jur bu guddi jotee nga xëcc sa buntu tëj yaa ak sa soxna yaa bon bàyyil sa yaay moom it xëcc tëj buntu mook sa baay waaye nit ñi dañuy dañuy foog te yii dafa bari Sénégal de billaahi wal kitaab bi dafa bari Sénégal daf fi bari daf fi bari nañ ko wattandiku nañ ko wattandikoo sa kilifa doo nekk kilifaam sa kilifa da ngay dox ci waawam surtout li mu bëgg nag yàlla bëgg na ko li mu bëgg yàlla bëgg na ko bëggul lu xaram borom këram faatu na wala tàggoon ak borom këram keneen a ngi taxaw pour bëgg ko mais may ko ko waaye parce que yaa yoroo sa gi kër gi yaa yor dépense su kër gi ne ko doo sëy gannaaw tàggoo nga ak sama papa doo sëy gannaaw sama papa faatu na doo sëy foo ko teg tegoo ko fenn sa bànneexi bakkan boo dee di ko layoog yàlla sa yaay na fu la ju bàyyee la sa xottu kër dem léegi ji ab néeg jël waayam fat fa li bay dundee ba sax sikkim mën na caawee bi ba muy dee way jur yi tamit nañ am fulla ci seen njaboot man doom duma la jur ba pare nga yàpp ma déedéet sa sagaru kër gi nga am ba dugal ma ci maa la jiitu ci kër maa la dugaloon ci sama biir bi nga di ma weq wax nan laa wax wahnin wa fisaaluhu fi aamayn an ishkur li wa wa li waliday yàlla sa néeg danga koy teg ne ko yee eh, doom sa baay bi mu àndeek man danga koy wax cosaanul ndeyam waaw sa baay bi mu àndeek ak man ba nga sosu sa baay da daan nelaw guddi ba yaan lool man nga di ma weq ci sama biir bii fii yee doonoon sa néeg joxoñ ko biir bi yow ndey waxal ak moom fu la jut mat sëkk joxoñ ko biir bi ne ko yee eh, fii yee doon sa néeg balaa ngaa am kër gi fii moo doon sa néeg fii fanaan nga fi juróom-ñeenti guddi mënoon naa laa rey kenn du ko dëgg la wala du dëgg nga fi juróom-ñeenti weer mënoon naa laa rey te kenn du ko yëg bu may tëdd sax di seet nu may tëddee bañ laa gaañ su may wëlbatiku di xool nu may wëlbatiku bañ laa gaañ la ma daan lekk mu neex may ma xëy mu naqari ma ndax yow dëgg la wala dëgg da wax ak moom la ma daan lekk yépp ma xëy rek mu soppeeku neexatu ma ndax yow ba ngay génn sama bakkan xajoon ci nga génn ma leewu la manoo dara maa lay sang maa lay nàmpal su ma la fattal sa bakkan yi étouffé rek nga dee ma xëy yar la yóbbu école ngay jàngi ma di la yóbbu di ñëw di la toppatoo ba nga màgg tey nga am sa sagaru pukus bii sa baay tàggook man wala sa baay dee nga ne du ma du ma fi dugal keneen yal na ma yàlla may fu ma jëm waaye jëlal sa kër maa ngay dem fii nga nekk yow doom yal na la fi yàlla may jàmm man mi la jur yàlla na ma yàlla may fu ma wéer sama ndigg billaahi boo ko defee kër ga takk ci koom dégg nga wax bi jigéen ñi tamit nañ am fulla ci seen ci seen njaboot nangul jur doom mu gën la ndax ku ne nangu na ko ndax rasulullahi moo gën ndeyam moo gën baayam nit dana jur doom mu gën ko waaye bu ko ko won man soo ma wonee ne maa la gën ma bala kon nañ ci def très attention Sénégal bari na fi nag moo tax ma di ci wax ndax dañ ma ciy interpeller muy fii muy bitim réew dañ ma ciy interpeller ni may dalee jigéen nit lay dalee góor da ngay gis borom góor borom bi ci soxnaam génn àddina xale yi ne ko beneen jigéen du fanaan fiñ léegi yaayam sa yaa ca bàmmeel ya bàyyil keneen fanaan néegam lu ciy sa ñaari contexte yëpp dafay am kon nañ koy waxtaane suñ ko dul waxtaanee xamal leen lu ci yàlla wax duñ ko bàyyi te day gën di métti rek te lu métti baaxul ñëwee fu ñu yem ah foofu jeex na di wal xawaayidu min an nisaay foofu sax passé nañ ko waaw siyaabahunna waaw foofu la de wa ida balaga al atfaalu minkum al xuluma passé nañ ko ah waaw kay wal xawaayidu min an nisaai allaatiina laa yarjuna nikaaxan fa laysa alayhinna junahun an yadana siyaabahunna gayra mutabarrijaatin gis nga lam ci teg ci biir kër gi la wax de waaye nee na bu di di di baraj baraji nag barajaatin moo firi boppam yaa na barajaatin kañ moo firi boppam di baraj baraji nag yaa nga ca mbedd ma la yaa nga ca mbedd yaa ngay waxtaani kër Baay Demba yaa ngay waxtaani kër yaay Saaba du noonu yàlla ne bokk ci de à la bi ak bàyyeeku bi yëpp yàlla ne yow mi yaakaaratut ku la denc ci biir kër gi laa la ko may waaye xayra mutabarrijaatin wëlis nag ngay baraj baraj yi fu ne nga dem fa baat ba rek laa jël firiwaat ko xëy na mu ta bari jaati lu dul ngay baraj baraj ji rek <laughs> ana sax léegi mu jaar de waaw xayra mutabarrijaatin wa an yastafifna ngeen wayafal leen xayrun moo gën lahun na ñeel leen ñoom jigéen ñu mage ñoom ak ñi ak ñi to ah? waaw kañ wal yastafifna ah bi zinatin xayra mutabarrijaatin bi zinatin waaw kañ waaw kañ noonu la xam nga bi zinatin mooy lan ci taaru xam nga mooy lan di génn yow nga ne màggat nga ba noppi yaa ngi à la waaye di génn puudaru ba yàlla defal la jàmm ñu ne déet nga tegi xef rousaleef ba doyal mooy taaru bi zinatin ñu ne déet nga sol jesneer bu rafet paa boo romb ne ko àllaa ji jum <laughs> leer na te Alaaji Jum soxnaam faatu bu yàggul paa boo romb ne ko Alaaji Jum may ko dara jum bu jum de yaa ko rey yàlla ko yàlla yërëm soxnaam bi mu gaañoon léegi est-ce que mat na weer ah, mat na weer waaw bu yàggul daal ci waxin ñetti dimanche matagul weer bon matagul weer gis nga yàlla lu mu wax rek am na lu tax nee na loo mage mage yemale ko ci kër gi waaye bu ko parce que loo mage mage am na mag mu mel ni yow mu nekk ci mbedd mi di xaar <laughs> yàlla ba <laughs> dëgg la yàlla bum dina sa moroomu mag moo xam ne ba ngay jànq bëggoon na la nga bañ nga toog ba magi sañ ci romb ko lu muy xalaat démb dinaan laa ilaaha illallah ajaa dëgën mii te ma ko seeti <laughs> la jaa dëggeen mii te ma koo seetiwaat ñu dekkal cosaan <laughs> waaw yàlla lum la wax rek dëgg la ndax yàlla kenn mënu koo nax kenn mënu koo nax kenn mënu ko nax gis nga indi na feem yépp ba mu waxee ci xale yi jigéen yi ba noppi ñëw ci màggat yi <laughs> ah, foog ne màggat màggat yi foog ne mucc nañ yàlla ne maa ngi ñëw ci yéen seen feem yépp xam naa ko yàlla ne seen feem yëpp xam naa ko te am na màggat ñu mën a sañse màggat yoo xam ne ñoo dàq sañse gone yi maa la ko wax buñ sañ su bu wii laa ilaaha illallaah buñ sañ soo maa ci xam dara màggat ñu fudd ñu ñii ba mu dër laa ilaaha illallaah muhammadu rasuulullaah bañ romb rek wicci loxo lewetali mbaat ak lewetali bët ah nu jum def topp ca nag jéeri jum nu mu def topp ci ah, maa la ko wax jéeri jum tey nga sonn de waaw ah. alxuraan mel noonu ah, bàyyiwul dara maa farat naa fil kitaabi min shay yàlla ne téere bi bàyyiwuma ci dara waaw moo tax mu ne xayra mutabarrijaatin bi ziinatin waaw ngay génn nag di taaru yenn taaru yi tey màgget di sañse yenn sañse yi yàlla ne mayuma la ko de à la légère nag à la légère ba pare sañse yow màgget loo màggat màggat yàlla ne mayuma la ko defal jikko yi ku màgget rek yiiwal te génn lu ci topp waan yastaafif na mu ne waan yastaafif na xayrun lahum na ñu woyefal moo gën fuuf ci ñoom lu tax wallaahu bur yàlla samiun ku dégg la ba ngay nuyu góor ga alimun ko xam la la ca sa biir xol ba ba nga koy nuyu wallaahu bur yàlla samiun aji dégg la ba ngay nuyu góor ga jum alimun ko xam la la ca sa xol yow ba nga koy nuyu waaye juum yooyu ba nga koy fay yàlla ne xam naa li ci sa xol dekkal cosaan dong nga ci newoon tey juumay sama doomu bàjjet cey yàlla ey yàlla alquran Hmm. yal nañu yàlla dolli sutura alquran rek am neex mu teg ci ne laysa alal ama déet di war ña silmaxa xarajun benn bàkkaar wala alal aaraji déet ñeel ña nga xam ne tamit dañ am ay jam-jam maanaam ay góom xarajun benn bàkkaar wala alal maridi déet muy ñeel ña feebar xarajun benn bàkkaar wala ala anfusikum déet du yéen ñii di ay patron xarajun benn bàkkaar ci lan an taakulu ba ngeen lekk min buyutikum ci benn néeg yàlla daf lay wax ne bul séexalu kenn ngeen daje néegu bàyyi añee fa yàlla ne wàññiwu dara ngeen dem néegu ndey néegu yaay añee fa wàññiwul dara ngeen teg ko ci ëtt bi añee fa wàññiwul dara antaakulu min buyutikum ngeen lekk yéen ci mbooloo ci seen néeg aw buyuti amaanikum abaikum wala seen néeg baay aw buyuti ummahatikum wala seen néeg yaay aw amaamikum wala seen néeg tanta aw buyuti ammaatikum walla seen néeg bàjjan wala maam aw buyuti xaalaatikum wala seen néeg frère walla nijaay aw buyuti xaalaat euh, axawaalikum boobu axawaalikum seen néegi nijaay wala frère aw buyuti xaalaatikum wala seen néegi grand frère wala petit frère bu mu ci mën a doon wala néeg ba nga xam ni yaa ko moom caabi ja aw sa sadiqikum walla sa néegu xarit maama as jéey sa xarit la nga dem néegam ngeen fay añi laysa aleykum déet benn di leen war junaahun bàkkaar an be taakulu ngeen lekk jami an yéen en groupe aw ashtatan wala ku ne def ci palaatam <laughs> palaat maa la ko wax mu ngi nii tetaate laysa aleykum déet di leen ñeen junaaxul jileen leen ñeel junaaxul benn bakkaar an taakulu ngeen lekk jamii an mbooloo lekkuk mbooloo aw wala boobu ashtaatan ku ne def ci palaatam ngeen teg bool bi kii tibb palaatam toog fële kii tibb palaatam toog fële wala ngeen toog à table maas à table ku ne yar sa palaat tiim ko yàlla ne boobu baax na waaye lekk mbooloo bi nag la yonent bi taamu woon moo tax Maodo woy ko ci miimi ya mosul lekk beru moom ñépp a daan bokk waaw jeex na maakaana yaakulu xayra xayral xalxi waaw waxal ma waaw faridan mu ne mosta lekk mun faridan di kenn li anna zalika xiya xiyamul nisk waaw wal xam nga wax nañ ni lekk yow kenn day gàttloo wërsëg waaye bu dee mbooloo day indi barke ci lekk yi aw ashtatan wala ngeen def kenn ku ne ci palaatam mu ne wa isa daxaltum bu ngeen duggee nag bu yuutan cib néeg fa sallimu na ngeen nuyu ala anfusikum ci seen bopp taxiyatan nuyoo boo xam ne min indillaahi fa yàlla lay jóge mubaarakatan bu barkeel tayyibatan bu dagan bu teey kadhalika naka nii yubayyinu la leerale allahu buur yàlla lakum ñeel leen aayaatihi aayaam yii laallakum ndax yéen taaqiluuna ngeen mën a am xel tey xelu xam nga loo ci déggee yaa moom sa néeg ñëw nga ubbi néeg bi yaa yor sa caabi kon xam nga kenn newul ci néeg yàlla ne bu mu tere nga nuyu néeg bi xam nga noonu lu yonent bi jàngale foofu ne noonu nga koy nuyoo assalaamu aleykum yaa ibaadallahi almukramuuna yaa ibaadallahi almukramuun maa ngi leen di nuyu yéen jaami yàlla yu tedd yi fi ne néeg bi boo ko tëjee dem sax malaaka yaa ngi ci biir moo tax nga ni taxiyatan min indillaahi foofu nga koy déggee xam nga yàlla dafa ne taxiyatan min indillaahi mubaarakatan tayyibatan moo tax mu ne kadalika naka noonu nag yu bayyinu lay leeralale lay leerale allahu buur yàlla lakum ñeel leen aayaatin aayaam yi laallakum ndax yéen taaqiluuna ngeen am xel mu ngay jeex nag suñ borom nee na innamaa ca dëgg dëgg dëgg almuminuuna jullit ñi alladina mooy ña nga xam ne amanu gëm nañ billaahi ci yàlla bañ ko gëmee ba nopp wa rasulihi gëm nañ ndawam li muy sallallahu alayhi wa fàttalekul ne isa jamono boo xamee ne kaanoo nekk nañ maahu ànd ak yonent bi sallallahu alayhi amrin ci mbir jaami muñ bokk daje lam yazhabu duñ dem mukk di beddeeku xatta lu dul yastaazinuhu dañ jiisoog yonent bi ne ko ndax mën nañoo dem fii te ñëw duñ toog rek disparaître doxi seen soxla déedéet dañ ko naan ndax mën nañoo dem ci bitig bi te ñëw dama bëgg jëndi nangam tàggoo lay wax foofu xataa yastaazinuhu lu dul ñu diisoog moom tàggu ko inna ladina gaañ a nga xam ne inna ca dëgg-dëgg alladina gaañe nga xam ne yastazinunaka ñu ngay diisoog yow di la tàggu ñoo ñooñu di diisoog yow te di la tàggu yow rasulullahi alladina mooy ñi nga xam ne yuminu gëm nañ na gëm nañ billaahi ci buur yàlla wa rasulihi ak ndawam lii di yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wa isa jamono boo xam ne istazanuuka digaleef nga leen te jox leen ngant li baadi sha'nihim ci lenn ci seen mbir yi fa adan digalal waxtu wuñ diisoog yow ne la dañ bëgg a dem barab sàngam wala dañ am ngantu sàngam yàlla ne ko yaay seet rek xoolal ni mu bëggee yonent fa iza staazanuuka li baadi sha'nihim suñ diisoog yow tàggu la ci lenn ci seeni mbir ci lenn ci seeni mbir li baadi sha'nihim ci lenn ci seen mbir mu ne fa adan jox leen ndigal wala bàyyi leen leen li man chita li man ñeel képp koo xam ne chita neex na la yow yonent bi nga ne ko demal ku la neexoon nga ne ko déjul minhum ci ñoom nag sans exception mu ne wal yastaxfiri nay jéggulu wal yastaxfir na jéggal lahum ñeel leen kum ci neexit mu ne ko demal bàyyi ko mu dem ndax allahu bur yàlla wastaghfir lahum na leen di jéggalul ndax toog di tàggu yonent bi sax suul adab la mhm. moo tax laa tarfa'u aswaatakum fawqa sawti nabi yàlla ne bul wax sax sa baat jëm ko kon boo ko ne may ma ma dem ci bitig bi te ñëw suul adab la da war a toog rek loo am am soxla toogal ba yonent bi yeewi la nga door a dem moo tax mu ne ko nag gannaaw ci tàggu la lañ dëkk te tàggu la bàkkaar la diisoog yow yu yi sax bàkkaar la laa tasalu an ashyaa in tubda lakum tasukum nga koy déggi ashyaa moo del si wat laa tasalu tax mu ne ko nag wastaghfir lahum nang leen di jéggulul ñoom ñooñu allah buur yàlla ndax soo leen jégguloo inna allah inna ca dëgg dëgg dëgg allah liy mbir tey mbir li wér te wóor mooy allah buur yàlla gafuurun ku leen di jéggal la du ca yem raximun ku leen di yërëm la ñëw na li ma doon wax mu ne laa tajaalu bu leen di def de duaa ar rasuli wooteeg yónnant bii baadakum kenn ci yéen ka baynakum seeni diggante ka duaa i baadikum baadan yàlla ne bu leen yaakaar ne nii ngeen di wootante eh Mansour eh Chérif eh Yaxya Jóob Mansour yàlla ne nii ngeen di wootante bu leen ko wooyee yonent bi <laughs> eh oustaz eh xaar ma xaar ma yàlla ne bu ko def yonent boo koy def ma rëq sa ndigg du sa morom yàlla ne ku leen neex def leen ko ko nag ba mu des yonent bi beneen bi beneen bi moo di beneen prix bi moo di bu leen yaakaar ne seen ñaan yi ni ma koy nangoo lay nangoo ñaanu yonent bi du yéen du ngeen moom moom bu naan allahumma balaa mu koy wax fekk ubbi naa bunt yi ne ko loo wax yéen na yéen nag dangeen ngeen naan allahuma ma tëj bunt yi taxaw ci port ba ne jibril taxawal ci bunt bi laaj ko mooy kan ba pare ak sañ-sañ ban la am di ma ñaan ak mooy kan xam nga bokk jibril wala asrafil wala mikail ñi yor wërsëg bi laajal ma kooku mooy kan te yàlla la bind di xam na la waaye pour minimiser la wan la ne doo yonent bi moo tax mën la taxawal foofu yaay kan mu ne man la Chérif Ibrahima mu ne xamuñ ko lu mu fiy ut ne ko bu mu fi ñëwati yonent bi nag bu ne allahuma balaa mu naan allahuma porte yi ne na ubbeeku mu jàkkaarloog yàlla yàlla ne ko bul naan sax gafuru rahim li nga bëgg def naa ko jéggal naa leen baal naa leen yaa ngi koy déggee walaw annahum id dalamu anfusahum jaauka fastaghfarullaha wa astaghfara lahum rasul la wajadullaha tawwaban rahima foofu nga koy déggee yonent bi kenn du moom mu ne laa tajaalu duaa rasuli baadukum ka duaai baadikum baadan qad yaalamu llahu alladina yatasallaluuna minkum liwaasan falyaxdar alladina yuxaalifuuna an amrihi an tusibuhum fitnatun aw yusibuhum adabun alim gis nga jo yuuxu yonent bi wala sàllalu ko <laughs> moo tax ñi koy def ci jamono bii sax ci lañ bokk de Muhammad Muhammad Muhammad mel ni yonent bi sa morom la kenn du ko def gis nga yàlla fii yépp fu ngeen dégg mu ne Muhammad amul rasul rek fii yëpp rasul rek ngeen dégg muy wax laaye ji yëpp suratu nuur liñ fi romb yëpp lu ngeen dégg rasul rasul rek dafa téere dafa xamul kuy muhammad ormal ko moo tax diggu leen benn yoon yàlla ne rasul yàlla ne muhammad ñeenti yoon dong la tudd baati muhammad ci alxuraan te daf ko doon layal te la tax booy plaider nit turam ngay tudd maa kaana muhammadun aba ahadin min rijaalikum du seen baay ñu ne ko yaa jur xaasim bi yaa jur faatima ak roqi ak may euh, euh, zeynab bañ ko laajee sëriñ Cheikh xam nga lu tax mu ne yonent bi ëpp nañu bàyyi moo tax du suñ bàyyi <laughs> mu ne ëpp nañu bàyyi moo tax du suñ bàyyi maa kaana muhammadun aba ahadin min rijalikum mu ne daf ñoo ëpp bàyyi moo tax mu ne laa tajalu duaa baynikum duaa rasul baadukum ka duaa i baadikum baada bu leen ko def baaxul ca dëgg-dëgg yàlla mu xam na allahu buur yàlla alladina gaañ yi nga xam ne yatasallalu na ñu ngay sàllalu <laughs> minkum ci yéen liwaasal ci ku war yonent bi sallallahu alayhi fal yaxzari na mu ñëndiku boobu ba yonent bi ñëw eh eh eh loolu nit ku yëw sax doo du ko def fal yaxdari na mu ñëndiku alladina na ña nga xam ne wuuti yonent bi wuuti na seen ginnaaw ba dem nañ mu ñëndiku ba mu ñëw an amrihim luñ yàkkamti yàkkamti ak luñ am am soxla nañ téye soxla bi ba yonent bi ñëw su ngeen ko defut an tusibahum dana leen ci jotee fitnatu nattu aw yusibahum dana leen ci jotee adabun mbugal alimun mu métti la ca ñeel maa lépp loo xam ne gis nga fële man képp maa lépp képp lépp kon képpi lépp yàlla la ñeel alaa waawee alaa dama ne inna ca dëgg-dëgg lillaahi aji sax la ñeel buur bi ñuy wax yàlla maa lépp loo xam ne fi samaawaati mu ngi ci asamaan yi juróom-ñaar wal ardi ak suuf yi juróom-ñaar la moo dagganti wal ardi ak xat ca dëgg-dëgg yàlla mu xam na moom suñu borom maa lëpp loo xam ne walla la nga xam ne antum yéen alayhi nekk ngeen ca yàlla xam na ne xam na ko wayow yawma ak bés ba nga xamee it ne turjauna da ngeen dellu ilayhi ci moom yàlla yàlla na li ngeen nekk xam naa ko te bés bi ngeen delsi ci man xam naa ko yurjauna waaw dellu bu dee turjauna delloo bu dee yurjauna dellu bil wars way xaafs alaa waawee inna ñeel ca dëgg-dëgg lillaahi aji sax la ñeel buur bi ñuy wax yàlla maa lëpp loo xam ne fi samaawaati mu ngi ci asamaan yi juróom-ñaar wal ard ak suuf yi juróom-ñaar xat ca dëgg dëgg dëgg yàlla moo xam na maa lëpp loo xam ne antum yéen alayhi nekk ngeen ca wa ma ak bés ba nga xam ne it yurjauna deef na na leen delloo ilayhi ci moom moom yàlla xam na ko fa yunabbiukum bu boobaa fa ca saasa bi ngeen ñëwee dugg bàmmeel rek yunabbiuhum dana leen xibaar moom buur boobu la di suñu borom bi ma ci sababu la nga xam ne amilu jëfoon ngeen ko ci àddina dana leen ko wax wallaahu buur yàlla bi kulli shay'in mbir mu mën a doon te ngeen defoon ko wala ngeen waxoon ko alimun ku ko xam la wallaahu buur yàlla alimun mooy aji xam ji lum mën a doon bi kulli shay'in ci mbir mum mën a doon ci def ak wax yàlla ne xam naa ko sadaqa allahu alazim wa ballaga rasuluhu nabi almustafa alkarim wa nahnu ala ma qaala rabbuna wa xaaliquna wa raziquna wa mawlana min alshahidin wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu kon la dige woon yàlla suturaal nañu jeex na muy suratu nuur ah luñ ci juum yal nañu ko yàlla baal xaadim demal toog ba mu pare yow tam yal na yàlla dolli sutura ci ñëpp yal na yàlla dolli sutura ci ñëpp liñ diggee woon ay weer jeex na yii tukkee ko waraloon yi waxtaan yi ci diggante bi ñu doon ko def moo tax waaye nag ñu ngi ñaan di sant yàlla moom mi nga xam ne moo ñu may kàttan ba lañ diggee woon mat na kon nag alhamdulilahi rabbil alamin suratu nuur moo jeex waaye kaamil bi jeexul incha allahu mag ñi ma fas yéene di waxtaan ci ñoom jërëjëf imaam yusuf su mag ñi jeexee dañuy jël siwaat ci alquran bi xam naa mag ñi moom duñ jeex incha allahu taala ajjuma bii di ñëw fas nañ yéene waxtaan ci Cerno Yaxya Li kenn ku nekk ñu ñu waxtaan ci ñoom jubluwuma ci dara nag lu dul tiijaan yi xam ne am na yeneen wëli yu yàlla baaxal bañ baax te booy jël tarixa bi dafa bokk ci charte tarixa bi dañ la naan doo xas wala ngay ñi benn wëli yu yàlla dëgg la wala lu dëgg ci charte tarixa bi la bokk waaw lu tax nga jël tarixa bi ba noppi nag teg sa làmmiñ bi ci deru beneen wëli boo xam ne du tiijaan di ko xas walla di ko ŋàññi ñàkk a xam ku xamul nag dañ koy xamal loolu rek lañ ci jub ñu xam ne yeneen wëli yii am nañ mayu yàlla gu mat sëkk te yàqul ci mayu tiijaan Tijaani dara lii rek laa soxla waaye soxlawuma ci leneen yal nañu yàlla defal sutura nag ba nit ñi xam man li ma bëgg man loo ñi may wax ci ñoom soxlawuma ci ñoom xaalis soxla ci soxlawuma ci ñoom ñu seet si ma ñu seet si ma wala ma seeti leen dama ko def innama la yàlla wax ne innama nutimukum li wajhillaahi nutimukum du ñam rek hmm? kii day xiif ci biiram pour lekk kii xiif ci xam-xam kii xiif ci leer inama innama nutimukum maa ngi leen di leyal kat li wajhillaahi ki xiif ceeb ki bëgg leer leer ki bëgg xam-xam-xam waaye defuma ko ngir ngeen tagg ma de li wajhillaahi te def gi ma koy def laa nuriidu bëgguma ca minkum jógee ci yéen jazaan ku ma ne waaw góor walla shukuran jazaan ku ma fay jox ma cab chèque soxlaw ma wala shukuran du caagan kuy tagg samay maam naan ma jër jëf ay dara karaara ba muy xalal la ko yaayam ne woon karaara merci bëgguma ko yàllaay kese moo tax ma di ko def yàllaay kese moo tax ma di ko wax lu jafe la nag ci jamono looy wax ñu ne day dóor loo wax ñu ne daf ca bëgg dara loo wax ñu ne am na lu tax mu wax ko loo wax ñu ne nàngam waaye ndem rasulullah yi lañ bàyyiwul bàyyiwuñ kii nga xam ne mooy xewle alxemes muy maam borom Touba bàyyiwuñ Seydou Hadji Malick bàyyiwuñ Cheikh na Tidiane duñ bàyyi Chérif Ibrahima duñ bàyyi keneen duñ bàyyi keneen duñ bàyyi keneen ñun ñépp nañ bàyyi xel rek ne même sa biir kër dépense bi ngay jox sa soxna mu fas yéene togg ci ceebu jën suba wala suppu kànja wala maafe jox ko ko ngir yàlla rek bu la meree ci guddi gi mën naa soppi togg gi seet la nga gën a bañ mu togg ko naa la ko kontaanoon na nga ko koy jox ci bëccëg lu dox seen diggante ci guddi gi mu soppi mu soppi ko xëy togg fonde nga xam ne la li nga bu ma sonal li nga joxe fonde la man nooy def muñ te naan ko ba hii jekk tànk nag fonde bii mosoo koo togg ah bébé yow kii fonde spécial kii moom fonde bii moom amut pale bu ko defee day rus ay boo ko ni waaw rek xuloo jib hmm, da ko naan lay lay la la géej naa lekk fonde bu ni mel bii amut pale waaw bii xanaa asamaan la jóge boobu door a ñëw gis nga boo waxee loolu bu bër setee ganaar yu fatt taraj la lay tegal añ <laughs> te naan la seytaane fi doxoon rek <laughs> yal na yàlla def dégg topp waaw àddina jafewut ñun ñoo ko jafeel àddina jafewut ñun ñoo ko jafeel àddina jafewut ñun ñoo ko jafeel bu ñu reyee suñ mag ñu baax ñii rek dem nañ ubbi xol yi rek fóot ko ba mu set kenn ku nekk dugal ci moromam teg moromam muy seetu rek waaw jeex na boo taxawee ci seetu sa bopp rek ngay gis laa yuminu ahadukum xatta yuhibba li axihi maa yuhibbu li nafsi sallallahu alayhi wasallam ne ne kenn ci yéen ngëmam du mat feek du lim bëggal boppam la bëggal morom yi jaamam bi in uridu illa al islaaha mastataatu wa ma tawfiqiya illa billahi alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu ñu julli gee